loolu bu amoon musibaam de dégg seetlu ngeen wax jooju nee na Cheikh Ibra nee na nee na sëñ Moussa Ka waxul maa ne dana Cheikh Ibra nee na tuuti kon tuuti kon mu fekk sëriñ bi lëmb mbiram ba kenn du mos ci baatinam lu dul ca bés ba nuy taxe maanaam Cheikh Ibra fekkoon na sëñ Touba di waaj a ëmbaat mbiram dellu waaw ki tax mu imbi ko ba lii lépp xa am ku ko def moroom doo doo dañ waxante dëgg de sëñ Moussa Ka ko wax te dégg ngeen ko tuuti kon mu fekk sëriñ bi la mbiram te kon kenn du mos ci baatinam lu dul ci bës ba ñuy texe euh, euh, màngo boobu ma doon wax euh, boo amee xarum boo amee xarum pël-pël muy tëb di dal walla nga am xarum seereer walla nga am nagu nagu njëkk boo amee xarum pël-pël xool ko xool xamoo noo koy def te bëgg mu am ras bu baax nooy def da ngay wuti kuuy mu tëb ko ah kuuy mu baax ngay wut mu tëb ko léegi mu commencé jur lu baax te pourtant yàlla leen bind ñoom ñaar ñëpp te gis nga lépp loo gis ci àdduna nangu na kilifteef nit rek kay nanguwul kilifteef nit rek ngay gis mu taxaw ne kenn yilifu nit rek a joxul dëgg Cheikh Ibra waaye du malayka du du leneen rab yi sax rab woo dem am na kilifa xam nga lu tax saa boo nee jaanu ñàngoor xam nañ ne waxoo jaan yu ndaw yii de ah saa boo xalum talaa xar yu ndaw yi xam nañ ne waxoo leen saa ne am xaaf xam nañ ne wuute nañ kon nag amul yàlla ci li mu bind rek wane na ci dëgg Cheikh Ibra yëpp moo tax nee na man daal ba ma jébbalu sëñ Bamba dama ko ne sëñ Bamba wanal nit ñi jikkoy Rasulullahi déggal wax jooju ñu mu xóote est-ce que xamoon ngeen ne Abdullahi wa xaadimu rasul boo gisee siñ Tuubaa tudd ko nit ñi la bëgg a wanaat koy yonente wi ndeysaan léeg-léeg nga dégg ñu koy wax nag nga dégg ko naan ñoom de yéen sëñ Tuubaa la ñuy tëkkaleeg yonente ci kaw njuumte xamuñu sax li ñuy wax buñ nee sëriñ Tuubaa nii la defoon nuroo ko yonent bi daf nuy fàttali kuy yonent bi ndax mu ngi bëgg a sori mu ngi bëgg a yàgg léeg-léeg ñu soppali ñu ci yu bari ne yonent bi nii la meloon ñii di werante Serigne Touba ñëw nag andil nu ba andil nu loo xam ne ci dundam ñun xamuñu ko woon waaye nag da koo jëfe da koo jëfe ci njabootam jëfe ko ci dëkk yi mu dëkk jëfe ko ci xaside yi mu bind yéen dégg ngeen ne serigne bi khasside yi dafa wax ne khasside yi du dara lu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom da ko ne bul bind bul bind lolu ay alquran la bul bind neena mom mo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam li nga warone bind so doon bind jox mom ma bind ko neena mom la len jox ni te neena na bi was sëdd bu mishaar nee bi dënn bi comme géej douce bu dem xam-xam bu ñëw beneen ñëwaat bu bokk ak ba jàlloon nee na ni duus géej di def nii la dënn yonent bi mel nga xam ne li ci nekk daanaka boo seetloo li ci ëpp moo ko tànk jox na ko mooy xaside yi ba noppi andi jëfam jëfam nag daal di koy teg kon nag Cheikh Ibra moom mu dafa ñëw nañu wa jaa min axsal madinati rajulun yasan yaa xawmi ittabiu al mursalin ittabiu man laa yasalukum ajran wa hum muxtadoon léegi nak kon cheikh ibra lum andi li neub won andi fi lu bes de gis nga yoonu Baye Fall bi tay dama bëgg waxtaan ak yeen yoonu Baye Fall bi kula ne yoon wu la amul xam-xam jangul man maa ko gis nga Baye Fall ni ñu mel ni nga gis seen jëm ni ñu mel ak ni ñuy doxale tay sahaba yi ni lañ melo ginnaw gi lañ andil benen melo ay sikki mak ñu ñu fudd ay jëy ñu tuba yu gàtt ak yooyu yëpp yëpp yëpp ay xalaatu nit rek la waaye saaba yi bu jëkk nañ meloon ku leen gis gis bàyyi faalu léegi yi noonu la ñu meloon ndax embargo nañ leen at ay at kenn du jëndante ak ñoom kenn du jëflante ak ñoom kenn du dem ci ñoom ñu nekk ci xiif ak ranke ak mar te foo leen fekk ñu ngi takk seen ndigg ba mu dëgër ngir bañ xiif bi daaneel leen seen jëm boo ko masaa gis doo ko ñeme xanaa xam loolu loolu duñ ko wax nga ni nga gis gaa yi ne gogg ni solo mel ni njaga jóom ni yooyu gaa yi ba ñuy ànd ak yonte bi jëkk taluñu ko woon de <laughs> doo dégg mukk ñu naan la ababacar ak mënoon a sañse gaa yi nag ñoo fi wax wala sayidna omar yii mbax na bu ko tagal loolu mas ngeen ko dégg wala ñu ne la yii ousmane dey mbub mu musul suba du ko sol ngoon te lool la gaay bëgg dé ne moy diine waxu ñu ne ku nekk diine doo solo ñu lool dañ ne lool ñu bëgg def moy diine lool yàlla amu ci soxla mbirum aduna rek la inna allah la yanzuru ila suwarikum yàlla né na noppalu leen seen jëm yi xooluma ko de ni ngeen mel xooluma ko waa ila ajsamikum xooluma seen jëm xooluma ni ngeen mel walakin allah yanzuru ila xulubikum seen xol yi lay xol kon gis nga nit lim mu war a jëkkant defar ko mooy xol te Cheikh ibrahim limi soxla ci nit moom la yàlla soxla ci nit xol bi lay defar rek wa tilka daaru laaxirati najaluha lil lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasaad alxuraan lim na bay faale batay neena nee na àllaaxira ña ko ñi nga xamne duñ kawe kawe lu mukk do leen gis mukk ñu tiitaru do leen gis mukk ñu na manum lamb da nga mësa dégg sëñ Cheikh jëmb mu naan <laughs> na ngeen ma moytu dé li ma yor kenn yoru ko da ngeen ko mësa dégg khalifa Cheikh dé sëñ Modou aminte da ngeen ko mësa dégg mu wax lool waye ku dul ñom léeg-léeg nga dégg ku naan <laughs> masna dégg bu naan <laughs> dégg na ngeen naan jaruma ragal té ngeen ya, ma ragal yu amna luma yor dé mané ah ab sëriñ diko wax wa kër Cheikh do len dégg mukk ñu xëccu ben daraja wala ñuy wané nen nuñ tollu té alcorane néna ñooñu kat am nañu beneen jikko te duñ yàq te lu defaru ñoom la alxuraan limaat na Baay fàll nee na nee na ñi nga xam ne ñoom alazina yunfiquuna fi sarai wa darai wal kaazimina al xays wal aafina an innaas wallahu yuhibbul muxsinin alxuraan a ko wax de xam nga alxuraan nag lu ñu ciy bañ mooy alxuraan benn aay jóg rek nga ne nga ne ah diw de diw de ginnaaw du def nangam bokku ci yow kay ginnaaw moom remplir na aay bi xamal ne moom la ñi nga xam ne bu bu bu ña ñàkk bu ñàkk amee dañuy joxe bu am am amee dañuy joxe ñoom ñàkk ak am la ñu yemale naqari jamono neex jamono la ñu yemale dañu joxe rek ñooñ ñan la Cheikh Ibra bi ñàkk amee dëgg ci yoonu murit nga xam ne booba booba kenn gisul dara muy jamono Cheikh Moustapha Mbacke ji nga jamono boobu li Cheikh Ibra jëf ci yoonu murit moo ëpp sax la mu jëfaloon bi Sëñ Tuubaa di ne xamoon ngeen loolu xamoon ngeen ne jamonoy ñàkk te ka jamono Cheikh Moustapha xam ngeen ni mu demee woon metti woon na metti goo xam ne gi da dégg nga sëñ Moussa Ka di ko nettali ci biir crise boobu la Cheikh Ibra ak Baye Fall jëf loo xam ne ci yoonu murit kenn dootu leen dam booba jamono nit ñi nit ñi lu ñu lekk sax amuñu ko Cheikh Moustapha laajte ay nit Cheikh Ibra joxe juróom-ñaar téeméeri nit juróom-ñaar téeméeri nit Cheikh Ibra joxe ko waxuma 70 de waxuma juróom-ñaar fukki nit de. mu joxe ko te booba jamono nit ñi dañoo jaaxle woon fan la Cheikh Ibra di jële xaalis ndax boobu xaalis amul te booba ay saaku xamoon ngeen ne ay saaku xaalis la daan yéen nit ñi ñu ko yóbbu addi ay saaku te kat waxoon naa leen ne moom joxe addiyam bokkul ak ñun ñii de ñun nañu roy ci moom te bañ ko def morom te ki fi mu ne ku wéet rek defe ni Cheikh sa moroom la léegi sax léeg-léeg nga dégg ko naan <laughs> man maay Cheikh Ibra ndaysan mam mariam Sey ndey sayidina usman yalla nako yalla yàlla leer man fekke na ci daru Musi ben mbokum talib mu ñu woy mam Cheikh rafal waye bako soxna si degge dafa tit ne kan ngeen di woy Cheikh ibrahim ñu ne ko diw mi mu ne wal leen mako ne ko da nga bëgg gatt fan ndey seigne usman de ne ko wor na yalla buñ lay woy mam Cheikh rafal do fi yag de yeen da ngeen xam koku badiko badiko fowé ko waaye gis nga lam wax soxna si ba mu nelawee yàggul kooko nelaw te man li ma leen di wax xam naa ko de Cheikh Ibra du ko ñuy foowee de Cheikh suñ suñu borom dafa fonk mbiram fiir ci mbiram sëñ Touba fiir ci mbiram ndax Cheikh Ibra na ngeen xam ne dañ koo fayee sëñ Touba xam nga li nit ñi xamul mooy xoola xaside yi maa ngi leen di jox benn tegtal loo gis sëriñ Touba wax ko ci digganteem ak yonent bi soko ko xam da ngay xol da ngay xol nit ko Cheikh Ibra defalé rek nga xam kon lool amon na nafsi wa dini suma ahli wal walad wa maskani lak wadi'atun atun abad nafsi sama jëm man khadim rasul Cheikh Ibra joxewul jëmmam seigne touba wa dini sama dini suma ahli ak sama wa kër wal walad ak samay doom wa maskani ak sama dëkk bi yàlla lakk wa di atun abat féetale naa la ko faw bu ci kenn doon dara Cheikh Ibra ñëw ne ko man tam nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani lakk wa di atun abad sëñ Tuubaa waxaat ci digg mag Rasulullah ne dammi wa ahli fidaau lahu sama deret ak sama waa kër def naa ko fiddaaw muy yonent bi Cheikh Ibra daana wax naan man ba may jur sama doom yi doomi sëñ Bàmba yee tax loolu nee naa leen du ngeen ko digg ci adduna mukk ko wax daana wax naan ñaan naa yàlla lu nar dal doomi sëñ Bamba yàlla na dal sama doom man de dégguma yéen ñi kenn wax ko ci naan sama <laughs> sama ngone si daal lu nar dal sëñ bi yàlla na ko dal doo dégg yi wax ko de dañ naan ndeysaan sëñ bi de dégg ngeen li <laughs> xew rek kooku kooku ñun ñëpp ko ameel njukkal Cheikh Ibrahima du morom loo gis rek bara ani xaalixu min siwaahu aji bind ji génn na ma ci lu dul moom sëñ tubaal loolu la wax ci diggam ak yàlla Cheikh Ibra tamit yàlla génn na ko ci lu dul sëriñ bi dëgg loolu dëgg lan ngeen mën a seereel Cheikh Ibra lu dul loolu kon noonu laa bëgg ñu jàngate ko lu sëriñ bi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek xool leen ko li nga koy gëmee mooy dangay gis ne Cheikh Ibra defal na ko kon man kaana lillaahi kaana laahu jalla lahu yàlla yàlla kawe na kawe goo xam ne loo ko lebal mu fay la ko yéen yëpp xam ngeen loolu sëñ Touba nag lim lebal yàlla Cheikh Ibra ko ko fay waaw Cheikh Ibra ko ko fay waaw. mu Baye Fall ne ko mën daal jël yi jaaxal na ma mu wax ma wax bu baatine ne ma xàbbun bu dul tiit du jar téeméeri junni. Eh, maa ngi leen di wax wolof yoo xam ne xaw ma ndax xam ngeen ko xàbbon bu dul tiit du jar téeméeri junni wax xam ngeen ko hmm? sëñ xam nga ko xàbbon tiit du jar téeméeri junni xam ngeen lool nag bu matee dëgg dëgg doon xàbbon day jékki-jékki ne bëreet taxawaat lu yëngu mu mu mu daal di yëngatu taxaw di xool lal la ñu ne la maytul bul ko jaare wet gogu day tit ndax bu bu maté deug day tit xabon lolou moy jillu mouride <laughs> bu señ bi fessé ci yow non ngay def ni xabon di def wa xam nga ni muy def non moy non wa motax señ touba lepp ko jox deug ma di len wax ne len Cheikh Ibra déssélul dara señ bi ndax señ bi déssélul dara yalla fofu la digënté mak señ bi toll lu señ bi lebal lu fi mu nekk nii saxaaba yi xool leen alxuraan ba mu daj sëñ Mbàkke man de mësumaa gis benn saaba bu yàlla bu sëñ Tuubaa woy ne yàlla gërëm na ko ci lu dul jëf jëf saaba yëpp ci jëf lañ leen gërëme te xam nga li ci yéeme mooy sëriñ Musaa Ka woy na ko li ko tàmbale ci Abu Bakar Seydina Ousmane Seydina Omar Seydina Aliou li ci yéeme mooy Cheikh Ibra kenn du moom ndax sëñ Moussa Ka nee na taxawaay bi sa ñeenti saaba yi taxaw moom la Cheikh Ibra moom kenn taxawee sëñ Touba nañ ko nañ ko nañ ko décortiquer nañ nañ ko topp par benn ndax dëgg la wala du dëgg Aboubacar Saddiq zu sidqi wal wafa du dégg ngeen ko ci alxuraan dégg ngeen ko ci xaside yi muxaddimaat zu siddiqi wala dafa dëggal ba noppi mottali kóllëre gaañ dëggal ak mottali kóllëre Cheikh Ibra royu ko ci kooku hmm? rafiqu nabiyul Moustapha xaara an ba ànd naag sëñ bi am na ku sant njóogu nee na ma sama baay tubaab yi duñ ko wóolu woon ba bari na lu ñu daan def maag sama baay mu ngi dëkk laa nee na kooku bari na lu Serigne Cheikh Mbacke doon laajte ci yoonu murit sama baay sama baay sama maam la ko doon laajte te ma maam waa kër Baye Niass la. nettali na ma ci sëñ Touba loo xam ne kooku ci digganteem ak tubaab bi sax neexut a wax nit ñi di ko dégg nee na ko eh, Cheikh Ibra am na bés Cheikh Moustapha di jotaay ak tubaab yi nee na ci la jëkk gise loolu ne Cheikh Ibra dafa ñaw mbubb moo xam ne. mbub mi da ko def ay yoon ci biir ay poos yu gudd yu tàmbalee fii ba fii def ko nii mu doon ay yoon nee na xam nga nu mu ko def mbub mi da ko summi rokkos ko xaalis ba mu fees mu sol ko nee na ànd ak Cheikh Moustapha bi seex Moustapha di wax ci bàyyi tuubaa bi ñu ne ko nangam ngay fay mu ne ko lu ñu wax rek signal ma fay ah Cheikh Moustapha gisul mu yor sa cartable gisul mu yor dara mu ne mu ne ko luñ la wax waxal ma fay kooku njóogu nee na ñii la Cheikh Ibra doon def loxo yi ci biir bu ñu rek ne tubaab bi wàññil ba xam ndax mat na di ko def ba may tubaab ba xaalis waaw bàyyi njëkk si ñe alalam moo ci dem bu wér ba tax Tuubaa nekk nekk ñu moom ko moo tax am na ci yoo xam ne sax neexu la nettali waaw am na ci yoo xam ne sax doo ci àgg ndax wax ji léegi dafa bari làmmiñ yi rëy ñi jëful woon dara ñooñu la fi seen seeni sët ne di mottali koo làmmiñ waaye ñi jëfoon dara ñooñu moom soxlawu ñu wax mooy waa kër Cheikh Ibra ñoom soxlawu wax ndax ba jëf jotee dañoo jëfoon dañ Cheikh Fall Baye góor nag daana wax ne na ngeen wattandiku sëriñ bi nekk fi defalu leen ko dara bam dem nga naan ba ma sëñ bi defaloo nangam. nee na waxtu wi nga nekk sa kilifa defal ko li nga koy defal ndax nee na yoonu murit lenn dong moo ciy manoore sëñ Cheikh Fall la ko wax ba ma sëñ bi defloo nangam te muy dëgg nee na jotaay boo teew boo waxee loolu sëñ bi defloo woon nga def ko te muy dëgg nee na loolu képp lu murit yi xool leneen loo fa wax dañ lay bàyyeeg loolu murit yi fi ne boo taxawoon ne leen junni rakk laay def dañu xam ne seen yoon nekku ci yàlla nga ko defal yaa moom la dafa jar yëpp wala waaye boo leen woon ba may defal nangam sëñ bi xam nga lu tax seen yoon da moo tax loolu fi nekk ni dañ koy daal di dañ ciy daldi di yiimu lool ba noppi am fuñ la teg suñ Cheikh Fall teg ci ne ngërëmal yàlla ak i ñaasa yem saa boo sël moo day gën a fes jarul wax kenn ay sëñ bi gërëm na ma man dangeen ngeen maa xamul nee jaru ko nee na ku yàlla gërëm foo seen jëmmam xam ko ndax nee na ngërëmal yàlla ak i ñaasa yam ñaas waaw ne boo sëlmoo rek mu gën a leer ñaas sax boo ñaqee day xaw a mel ni ku kii waaye boo toiletto ci lay gën a génn nee na kon na ngeen sàkku ngërëmal yàlla waxtu ngeen ko war a sàkkoo ci ki ngeen koy sàkkoo Baye Moustapha Faye guy ngéen Baye Moustapha Fall guy ngéen sëñ bi xam na ko toog naa ci kanamam sëñ Cheikh Fall toog mu ne ko man ci Cheikh Ibrahima laa jébbul woon ñu yóbbu ma ci daara ji boobu gone la bi ma laata gimmiku Cheikh Ibra noppalu ma àggale sama liggéey Cheikh sa Sabaye waaye daf ko ne seex Ibra moo ne moo ma ne Moustapha ma dégg muy wax mu ne Moustapha ma ne Fall mu ne ma yàlla daf ne jaamu leen ma ma yërëm leen wala ngeen liggéeyal ma ma gërëm leen liggéeyal yàlla xam nga nit ñi dañ koy jaawale liggéeyal yàlla ak jaamu yàlla bokkuñu bokkul de jaamu yàlla ci lim la sant waaye liggéeyal ko nag ci loo coobarewu te mu sax ci yow nga koy def mbaa dégg ngeen ni ma wax <laughs> ah xanaa xamuloo ne fi mu nekk nit ñu baree ngi defe ne ñu jullee rek xadd nañ kaaba gi ñooñu ñoo gën a juum ci lislaam xam nga lu tax am na ku ma sa wax doomam ne ko waaw loo mën a def ci caay-caay rek amul solo l'essentiel del julli nee ma ngay tubaabal noonu xam nga kooku kooku waxu ku réer la ndax li yàlla soxla yëpp defoo ci dara ba noppi sëgg siggi sëggaat siggi rek ne li mu bëgg yëpp def naa ko te nit ñi foofu lañ ne te alxuraan dafa wax am lu mu wax sëriñ saaliw yal na yàlla tas ci barkeem liggéeykat bu mag boobu nga xam ne liggéeyam kenn xamul fu mu tàmbalee kenn xamul fu mu yem kooku tawfiixu Serigne Touba la am sëñ Saliou tawfiixu Serigne Touba dëgg dëgg moo tax baat boobu ku mas di ñaanal dëgg dëgg loolu la lay wax yàlla nañ ci dajeeg tawfiixu Serigne ndax Serigne Saliou tawfiixu Serigne Touba la am ndax lii mu defal yàlla kenn loolu daal moom moom rek la ko yàlla may waaye nee na Serigne bi dafa ànd akum naar sëñ Saliou nettali na ko ci ñëpp di ko dégg. nee na naar bi jiit leeg sëriñ bi eh, nee na ba jub ay mbooloo moo xam ne mii jàpp na ne julliwuñu mu ne ko seex seex seex ne sëriñ bi ne rett taxaw mu ne ko maa salakakum fii saqar wax ko aaya bi nga xam ne moom la yàlla di tëkkoo ñu julliwuñ nee na sëriñ Tuubaa ne ko waylun lil musalliina naar bi ne cell continué waxatul ba léegi sëriñ bi waxul ñaar la nak deux fois deux mesures li tubaab bi wax ñaari mbir la ñu ne ci alquran motax ko ku yebu teey bu leen jël alquran mukk di ci yobbu nit sawara xam nga sank bi gaay ñi sikkar ma ngi koy wax fuma dem dina ko wax di sikkar ñuy wax te ñu bari dañuy wedd naan bay bàyyi fàlli ñoom ñu hee la hee la lol du la ilaha illallah fekk ñoom xamuñu li xew ñaati yon la ko waxtane bay faal yi ñiy dëbbe laa ilaha illallah la ñuy wax ñaari yoon ñii awu nag am na baat bu ñuy wax nit ñi bu ñu xamul tey ñoo noppi baat boobu baat boobu mooy turu yàlla dëgg noonu la yàlla tudd dëgg nag sax ma boobu arab amagul boobu ñuy aw naa hee noonu mooy turu yàlla dëgg moom la liir di jooye boo dégg liir naa hee loolu lay wax de bu ko waxul rek ñu ne ñu ne dundul lire lire tubaab ak bu chinois ci yam bu vietnamien bu juddo bu waxul tur yalla day dé ci saasi tur yalla bob boko waxul faatu motax day xalé dana judd sax du ko wax ñuy fëgg digg ginaaw di ko fëgg ba mu wax ko xamuñu ne baat boobu lañ koy wax lo mom la lire di joyé motax bu xalé joyé kenn du am jamm ndax mënul wax waye baatu yalla bobu lay wax moo tax mu tànqale bu ñu ngi wayow sa doom ji di jooy rek bi kenn nelawul fekk liir tur woowu lay jooyee moom la bàyyi faal yi aw bu nit di onk moom lay onke onk jooju nit di wax waaye nag dafa am ni ñu koy kiiyee waaw moom la nit di onke ku feebar déggoo ñu ne jullit bu feebar yàlla nga ko booleeg ismulaay laxsam lu mu ñaan mu am xamoon ngeen loolu ñun nag ay dof lañu xaw xamoo boo demee ci jullit bu feebar waroo koo jëkk ñaanal danga war a tàllal mu ñaanal la buy ñaan muy am mhm. ba ba noppi nga ñaanal ko <laughs> ndax jullit boo gis